man professeur Moussa Seydi chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann man maay wax ak yéen jàngoro coronavirus nag mu ngi law si biir askan moo tax ñu wax transmission communautaire kon boog yéen yéen a ñu gën a mën a dimbali fi ñu toll nii pour xeex feebar li ñu leen di digal nag mooy benn ngeen bàyyi dajaloo bi ñaar ngeen wàññi génn bi lu dul génn boo xam ne mënul ñàkk bu leen génn te kuy génn it na nga moytu bul jege trop nit ñi parce que xamu leen ndax am nañ feebar wala amul feebar mën ngeen leen sori lu mu tuuti tuuti lu mat mètre su ngeen génnee ba ñëw nag su boobaa na ngeen raxas seen loxo waaye raxas loxo du foofu rek lañ koy digal war ngeen raxas seen loxo balaa ngeen toog su ngeen toogee ba pare balaa ngeen lekk su ngeen lekkee ba pare su ngeen demee toilette ba ñëw ku feebar it ne nga toog sa kër nga woote su boobaa ñu wax la nooy def parce que soo ñëwee mun nga wàll sa médecin su boobaa feebar bi gën a garaaw si biir da ngeen bàyyi aussi discrimination famille boo xam ne dafa am ko feebar da ngeen leen war a jàppale parce que su ngeen leen jàppale dinañ làqatu du ñëw faju su boobaa feebar bi gën a bëri si biir dëkk bi loolu lu digal yi leen defal fii yëpp digal yu am solo la bi may mujjee nag mooy koo xam ne yëg nga ne da nga feebar yaa ngi saqat wala yaa ngi tisooli da nga war a jëfandikoo mouchoiru këyit après këyit bi nga sànni ko si poubelle bi raxas sa loxo su boobaa doo wàll ñi nga xam ne dañ la jege jërë ngeen jëf